Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani tariqaam dafa reposé wu ci ay base solide yoo xam ni benn bu ca ne génnul diine islaam génnul xaqiqa génnul sharia lépp ci xaqiqa lay dellu ñëw yonent bi ci xaqiqa lay dellu ña muy àndal ca xaqiqa lay dellu leer yañ cay tibb ca xaqiqa lay dellu moo tax ku gisul gisuloo waaye ku gis moom seede ni Cheikh Tijani Chérif waxuma lum mas wax. lu mu wax. lu mu waxagul. lu mu xalaat. lu mu mu waroon wax. lu mu wax na na ko wax. dëgg la gu nu mën prouver. Cheikh Tijani Chérif. Cheikh Tijani Chérif. du moroom. ñamu am. ñamu am duñu moroom. duñu moroom. duñu xeex. duñu xeex. duñu xuloo. duñu xuloo waaye amee nañu kurus. Baye ñas daan na wax ni Baye na wax dem defi saxa ca Màkka dem defi saxa ca Màkka jaar ci àll bi ci ànd ak coona ànd lu ne nga dugg ca ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi yàlla mu ni moo ne de am na loo xam ni mu ngi ci loxo nit laxas ko ci loxoom mën ko téye mu yóbbu ko Màkka léegi ba yàgg mu indil ko Màkka léegi ba yàgg mu tegal ko Kaaba gi léegi kuy weddi loolu kuy weddi loolu Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani wax na ni balaa maa nekk xutbu zamaan kaaba gi fii la nekkoon ma koy gis bés bu xëy sama diggu kër ba ma nekkee xutbu zamaan cër boobu dama ko xeeb teg ko fële seeti yàlla xam nga lu mu jàngale xam nga lu muy mooy waliyu yàlla yi lu leen yàlla mayul amul waaye li Cheikh Alhaaji Malick wax moo dëggal loolu mu wax moom mooy la mu ni karaamat ñi àggagul ci yàlla ñoo koy foowe kon ku àgg ci yàlla fu mu jëm kon ku àgg ci yàlla moom mu jëm gi doy na ñu de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi lanu nu sopp haa leer gi doy na seede